bi est-ce que pare ngeen tey jii pour gérer est-ce que jaayu leen ñun du <laughs> parce que euh, parce que euh, projet nga ñu doon wax depuis tout ce temps dem en conseil des ministres premier ministre qui l'a dit mooy que ay sénégalais ñu ngi ciy liggéey te dinañ ko am ci troisième trimestre bi kon projet bi projet la toll ba tey non les gens n'ont pas compris xam nga am na loo xam ne su nekkoon émission bu gënoon gudd mhm. dinaa doon expliquer techniquement lan mooy am parce que ñu am na sax lu ñu ci war a seetaan Sénégal mooy pays boo xam ne boo nekkee président bu bees avril la ñu lay installé. avril vous au quatrième mois de l' exécution de la loi des finances boo xam ne 31 décembre la ñu ko voté. Mm-hmm. yow booy ñëw da ngay fekk une loi des boo xam ne budget bi budget bi fa nekk. c' est arrimé comme mm-hmm. plan Sénégal émergent alors que nous on se démarque du plan Sénégal émergent. Mm-hmm. donc am na loo xam ne innovation la ko indi mais comme c' est pas pris en compte dans le budget te budget deuxièmement boo ñëwee ci mois d' avril xamoo le taux d' exécution bi ngay fekk ci ministère bu ñu lay jox par exemple jëlal jëlal par exemple ministère agriculture on vous installe au mois d' avril mois de mai déjà nawet bi mi ngi commencé di menacer paysan di lay teg pression pour te parler des intrants engrais et semences. Mm -hmm. certainement gars yi marché opaque pour yooyu na nekk ministre bu bees amagu sa cabinet amagu sa des conseils l'hivernage n'attend pas. Mm-hmm. ci mm -hmm. contexte boobu. il faut faire benn affaire mooy am. ou tu accélères pour faire plaisir aux paysans parce que hivernage xaarul parce que on a une culture sous pluie ou bien nga ne yow da ngay def état des lieux d'abord pour mu leer bala ngay xam fi ngay teg sa tànk mhm. donc il y a des choses très complexes qui font que le calendrier n'est pas toujours favorable moo indi pratiquement la première année jafe na trop quoi mais souvent mhm. pratiquement mënoo ci def lu rëy boole ci ñun réforme yu bëri la ñu bëgg a indi parce que am nañ innovation pour nga ko def il faut lever les nga xam ne moom moo te yeneen possibilité euh, kii bi réforme. réforme yooyu souvent c'est encadré par des lois organiques. loi organique pour nga mun ko tëbal il te faut les trois cinquièmes à l'Assemblée ñun amuñu ko donc on est obligé de nous adapter par rapport à la situation parce que compromission la ñu bëgg a éviter parce que compromission mooy lan dem di waxtaan ak les députés actuels. au point même d'aller foo xam ne waruñu fa egg du point de vue probité orthodoxie et éthique. donc l'assemblée va sauter naturellement après les deux ans. c'est une assemblée qui dérange. Mhm. assemblée bi configuration actuelle. amul ko mu arrangé. Mhm. amul ko mu arrangé donc dafa nekk sax un élément de blocage boo seetee ba seet. voilà ah, par rapport au projet qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la vie des sénégalais parce que ñu ngi koy dégg yàkkamti ko pour tout résumer cest à dafa mel ni. là où on devait écrire mille pages ma bind simplement une phrase. d'accord xam nga boobu am naa capacité de. bien sûr <laughs> c'est la bonne gouvernance boo ko appliquer à tous les secteurs apporter la toutes les réponses mhm. parce que corruption de tëb transparence dafay am redevabilité dafay am reddition des comptes dafay am égalité dafay am les statistiques soro clairement et de façon transparente reconnue. Est-ce que dina impacter ci panier de la ménagère le coût de la vie les attentes l'impatience des Sénégalais. panier de la vie moom moo indi président joxe instruction premier ministre pour que au plus tard le mai ministère bu nekk mu jéem a set conformément à la loi des finances existantes ban contrainte bi nga am pour l'exécution de certaines urgences et de certaines priorités dans ton ministère et deuxièmement fii ba le 15 mai nga mën a wax à peu près lan nga soxla ci ay ressources. et, et enfin, après la rencontre avec le secteur privé, il était question de voir comment baisser de façon significative dans les meilleurs délais le pouvoir, euh, le, le coût de la vie. Ah,